jërë ngeen jëf internetu Buzz SNTV dal leen jàmm ci xibaar ginnaaw bi nga xamee ne nag kii di Adamo pare seen jënd na wax ci ki nga xamante ne nii moo di Adamo naan Adamo la muy def da koo gëm maanaam Adamo la muy def da koo gëm ni loolu moo gën Adamo jàpp na ni daal la muy def moo gën mais kii nag ginnaaw bi nga xamante ne nii pare seen jënd na def révélation yooyu ne yooyu noonu ci Adamo ñu bëri fii nii ci Sénégal dañoo jënd di attaqué kii nga xamante ne nii moo di Pathé Sène parce que jàpp nañ ni kii ni di Adamo nekkul nit ku baax Adamo day vilipande ñi nga xamante ne nii moo di jigéen ñi day vilipande ñi nga xamante ne nii moo di moo di góor ñi day jënd loo xamante ne nii kenn waru koo jëne maanaam Kiri Adamo daal du suturaal nit léegi gars yi mere ko ci loolu attaqué kii nga xamante ne nii moo di Pathé Sène ginnaaw bi nga xamante ne nii nag attaqué nañ ko ku ci mel ni mag di jënd na wax ci kii nga xamante ne nii moo di Pathé Sène ginnaaw mag di nag bi mu waxee ci Pathé seen Adamo def na benn vidéo di tontu kii nga xamante ne nii moo di mag di Adamo ma ngay wax wax yu ñaaw kii nga xamante ne nii moo di mag di min ka naan yow mag di xanaa mënoo maa bàyyi yow mag di xanaa amoo jom yow mag di defoon naa la lii defoon naa kii nag di Adamo moom moo attaqué kii nga xamante ne nii moo di mag di ginnaaw bi nga xamante ne nag kii di Pathé Sène jënd na wax ci nga xamante ne nii moo di Adamo léegi ñu bëri mere nañ nga xamante ne di Pathé Sène parce que ñii sénégalais yi jàpp nañ ni kii nii di Adamo nekkul nit ku baax te du mës a nekk nit ku baax parce que kii di Adamo jàpp nañ ni dafa alku parce que kii di Adamo nekkoon na fi li nga xamante ne nii moo di jàngkatu Seydina Mohamed tàggkatu Seydina Mohamed léegi mu dem Europe changé nekkay fa loo xamante ne nii di yoon du dëgg di xaawi sutura nit ñi di jënd di wax wax ju ñaaw kii nag di Adamo ma ngay xam ne ni kii di Adamo jarul nawloo kii nag di mag ji moo yëkkati kàddu yooyee te ko ci kaw paate seen ginnaaw bi nga xamante ne nii pare seen ma ngay tagg kii ni nga xamante ne nii Adamo nekk nit koo xamante ne kenn nawloowu ko fii nii ci Sénégal bu ñu jugee foofu dem ci kee nga xamante ne nii moo di Soxna Aydara Soxna Aydara nekk jabaru kii nga xamante ne nii moo di le chanteur du peuple Wally Balago Seck kii nag di Soxna Aydara ma ngay éclaté wu maanaam ma ngay wu si lan ma ngay éclaté wu si sonwu jëkkëram bii nga xamante ne nii moo di euh, régintas kii nag di Soxna Aydara ma nga koy déglu maanaam sonwam boobu noonu son jëkkëram boobu noonu soxna ay dara ma nga koy déglu maanaam ca otoom di éclaté wu maanaam kontaan ci li nga xamante ne nii moo di soo boobu bu ñu jugee foofu nag ñëw ci mbirum bi nga xamante ne nii am na tey maanaam inondation boo xamante ne nii inondation bu metti la tey am na fii nii ci Dakar maanaam Dakaru tey dafa doon taw taw boo xamante ne nii taw bu metti ba li nga xamante ne nii moo di autoroute bi dafa mab maanaam autoroute bu Patte dafa mab ginnaaw bi nga xamante ne taw na ak inondation yu méttee métti yoo xamante ne nii jamono ji population bi ñu ngi koy dund fii nii ci Ndakaaru jamono ji daal en tout cas affaire yi métti na trop kii nag di président Macky Sall bi nga xamante ne nii ndox yaa ngay taa kër yaa ngay taa inondation bi mi ngay sonal nit ñi kii di président Macky Sall ma ngay euh, inauguré ay Sénégal dem dikk ay Dakar dem dikk yoo xamante ne nii yu nouveau la yu bees la te jamono ji population bi ñu ngi nekk ci ay jafe-jafe kii nag di président Macky kii di président Macky Sall moo def loolee tey ginnaaw bi nga xamante ne nii inondation yi mi ngi sonal ñi nga xamante ne nii ñoo di population bi gars yi ña ngay samp laaj nag ñu ne lu tax politiciens yi lu tax politiciens yi bu élection di jub si rek ñu tàmbalee def ay ñu tàmbalee def ay inauguration di tàmbalee indi lu bees luñ tëjoon ñu ubbi ko lañ lépp maanaam loo xamante ne nii daawuñ ko def politiciens yi dañ koy def maanaam gars yi population bi ña ngay samp laaj loolee nga xamante ne nii yi ña koy def kii nag di Ousmane Sonko mi ngi nekk ci caravane boo xamante ne ni caravane bu metti la te kii di Ousmane Sonko nag jamono ji gis nañu ma ngay wër région yi Ousmane Sonko jamono ji moo téye li nga xamante ne nii moo di bës bi maanaam jamono ji ñëpp jox nañ seen bët kii nii nga xamante ne nii moo di président Ousmane Sonko te jàpp nañ ni kii di président Ousmane Sonko moo mën a defar li nga xamante ne nii moo di Sénégal bu ñu jugee foofu nag dem ci kii nga xamante ne nii moo di Gabriel Kane Gabriel Kane ginnaaw bi nga xamante ne nii nag kii di doomu faa Fatoumata Ndiaye Fouta Tampi di wuyoo si turu Thiaba ma ngay jënn di def ay révélation yu doy waar ci ki nga xamante ne nii moo di Fouta Tampi kii nag di Thiaba kii di Gabriel Kane jël na ko récupéré ko maanaam def na changement ci xale bi maanaam def na changement ci xale bi ba nga xamante ne nii xale bi la mu doon wax ba delloo ko ci kii nga xamante ne nii moo di yaayam di Fouta Tampi ak kii tamit nga xamante ne nii nag moo di Gabriel kan ma nga doon wax ñu bàyyi xale bu ñuy utiliser di ko indi ci internet bi kii nii xale la xamul dara nañu bàyyi di ko utiliser kii nag di Gabriel Kane moo yëkkati kàddu yooyee teg ko ci ñi nga xamante ne nii ñoo di site internet yi ginnaaw yi nga ginnaaw bi nga xamante ne nii ña ngoy invité xale bi maanaam di ko utiliser pour alimenter seen seen i seen i seen i site loolu lañ indiloon ci xibaar.